xibaar yi wér te woo fii ci leeral SN xaar suñuy vidéo jërëjëf mbokk internet yu leeral SN yi ginnaaw bi ñu leen nuyoo ñu dëkk ak yéen ci ki nga xamante ne nii mooy avocat bu mag boobu di avocat du peuple ki nga xamante ne mooy président parti bi di PRP nekk candidat ci deux mille vingt 2024 yi nekk avocat à la cour fii ci tribunal bu Dakar nekk tamit avocat international ñu gën ko xam ci maître El Hadj Diouf moom nag ñëpp xam nañ ne. dafa amoon ay daan yoo xamante ne ni tegu woon na ci kaw mën nañ ne fi mu toll nii daan ya teggi nañ ko moom nag lañ ko doon toppee nekkul leen dul dossier bi nga xamante ne ni mooy dossier bu mag boobu dox ci diggante ki nga xamante ne mooy Ousmane Sonko président parti bu Pastef ak ka nga xamante ne ni moom mooy Adji Raby Sarr dossier boobu nag moom mi nga xamante ne ni moom mooy layal kii di euh, Adji Raby Sarr moom dafa bëri ay sorties yu mu doon def doon génn. di dafay conférence de presse di dal ci ki nga xamante ne ni moom mooy Ousmane Sonko ak di wax la jëm ci dossier bi te loolu li nga xamante ne nii moom mooy ordre des avocats dañ ko tere ginnaaw loolu nag lañ ko tegoon daan daat koy suspendre waroon ko àtte ci le 28 bi ginnaaw nag ba mu jàkkaarloo ba mu demee ci conseil de discipline ba jàkkaarloo ak ka nga xamante ni moom mooy euh, bâtonnier moom mooy bâtonnier de l'ordre des avocats ak ña nga xamante ni ñoom ñoo ko doon déglu ginnaaw ci suba ba léegi ay question yoo xamante ne ni doxoon na seen diggante ak ñoom ba ñu paree nag ñoom dogal ba ñu jël mooy que ni levé nañ lépp loo xamante ne ni ñu ngi ko koy toppee. kon lépp loo xamante ni tegoon nañ ko ci kawam teggi nañ ko kon fi mu toll nii métier moomu muy def mën na koo continuer te it mën nañoo xamal ne tamit dossier bii tamit dox ci diggante Ousmane ko ak aji Sarr moom mi nga xamante ne ni moom mooy avocat bu mag boobu mën na cee continuer. daal di ci plaider mais nag dootul def la nga xamante ne ni doon na ko def maanaam génn di àddu la jëm ci dossier bi loo xamante ni moom moo nekk ci fond dossier bi mu génn di def ay conférence di ko ci def waaye nag fu mu toll nii mën naa continuer métier normalement mën naa plaider mën naa continuer def lam daan def kon nag ñi leen di jaajëfal loolu moo nekkoon xibaar yi fi wàcc di leen ñaan ngeen abonné di emee bu ko defee ngeen di jot xibaar yu wóor te leer naññ.